jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci 28 Pro TV ñu ngi am mbégte ànd ak yéen seen émission découverte tey nag ñu ngi am mbégte di dalal kilifa gu mag di dalal kenn ci ñun koo xam ne maanaam dinaa leen ko wax muy le premier magistrat de la ville de Mbacké tey nag ñu fas yéene am ak moom découverte du maire de la ville de Mbacké Serigne Abdou Mbacké ndaw monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la dalal ci 28 Pro. ñu ngi lay fay bu baax. di nuyu Sénégal gi yëpp di nuyu Afrique di nuyu àddina bi le monde entier wante di beral nuyoo Mbàkke ak Touba di ñaan yàlla suñu borom yàggal fii suñu kilifa gu baax gi sëñ Muntaxa Mbàkke ak mboolem kilifa diin yi nekk ci Touba ak ci senegal gépp di ñaan tamit njiitu réew mi ak mboolem kilifay àddina yépp ak kilifay aada yi sunu baram may leen jàmm ak salaam ak fan gudd ak wér gu ak xel mu dal ba fi ñu bëgg yóbbu Sénégal ñëpp ensemble ñu ànd ko fi yóbbu. jërëjëf seen émission tey découverte ñëw a la découverte du maire de la ville de Mbacké Abdou Mbacké Ndao euh, moom mooy kan. ba mu waral jiite li nga xam ne moom mooy mairie Mbacke Serigne Touba sa maam la loolu moom kenn du ko nattable ko mais pour nit ñi gën a xam fi nga jaar tey suñ ko doon expliquer lan la ñu mën a taataane ci yow. Euh, Abdou Mbacke Ndao citoyen sénégalais la juddoo Mbacke jàng fii ci Mbacke Diourbel. am formation en stratégie en gestion une stratégie de gestion des organisations de l'université de Québec à Chicoutimi en co-diplomation avec l'Institut africain de management IAM IAM boobu fa laa defee bachelor professionnel ci wàllu marketing communication wante IAM aussi laa defee MBA ak MGO euh, ci wàllu stratégie de gestion des organisations muy diplôme boo xamante ni université bu Québec bi nekk Chicoutimi moom ak institut africain de management ñoo ko bokk euh, tamit am beneen jaar-jaar ci bitim réew ci réew yu bari ëpp réew ak juróom-ñeent ci àddina bi yàlla it baaxe ma euh, ci samay àddina yu it ay kilifa rek laa amoon chance ñu tellement bëgg adapté ma ci biir réew mi ak ci bitim réew looloo waraloon ma taxawal benn organisation pour le mouvement pour la solidarité internationale mm-hmm. pour jàppale Sénégal ci loolu boo xoolee def na actif actuellement ci deux cent deux ambulances yu ñëw Sénégal ci ñu yóbbu opère leen cœur ak yenn xeeti opération war nañu mat juróom-ñett fukki nit ak juróom it ak ñett loolu it doon suñ participation pour ci Sénégal tamit bokk na ci sénégalais yi nekk bitim réew ci bari organiser nañ leen jàpp leen ba ñibbisi bay commencé na ay activité bokk nañ ci daayira yu bari ñoo leen jàppale organiser leen bañ am récépissé bay mën di yeggu bokk na ci it 2012 bi crise universitaire bi amee Sénégal man seul du keneen télévision lay wax keneen ku mën a doon yëkkati loxoom man seul maa initié mhm. la médiation entre la SAES les étudiants et le président de la République Abdoulaye Wade dox médiation bi ba dajale tous les délégués de cinq différentes universités du Sénégal mhm. à Dakar à mes frais dajale leen ñu am rencontre avec le staff du président après président recevoir ñu ma dajale defaat beneen rencontre entre le SAES e et les étudiants ba ñu am commun accord mu organiser euh, beneen rencontre entre le président et le SAES e audience bi am résultat bu satisfaisant looloo tax euh, grève bu universitaire boobu des universités jeex le mercredi diir mercredi la ñu la jeex le jeudi ñoom ñu def ñoom ñëpp seen réunion dafa assemblée générale levée mot d'ordre bi lundi euh, euh, levée mot d'ordre bi vendredi dimanche nekk deuxième tour yi crise universitaire bi amaatee aussi ak les réformes universitaires man seulement jël jurisprudence bi ma bi amee ci 2012 yëkkatiwaat sama xaalis ak sama ay pexe ba regrouper waat tous les étudiants ñu am ay rencontre avec Euh, le ministre Mary Teuw Niane bien avant avec Mahmoud Saleh euh, le directeur de cabinet bu président bañ tënk ci la procédure yu signature convention yi am fi ñu toll mën naa laa woon léegi ay convention yu ñu signé te parce que j'étais partie prenante maa ko initié sama xaalis ak samay réseau ak samay relation ak samay pexe tous les cinq contrats mais toutes les cinq conventions mais université bu Bambey université de Thiès université Ziguinchor UGB UCAD convention yëpp maa ko encadré maa ko organiser ba teg ko ci loxo ministre bi ñëw toog si mais loolu liggéey naa ko ci enseignement supérieur mais dafay mel ni ñu ngi koy defal dafa dafa mel ne dañ leen rayal seen taaw parce que ndax ay jafe-jafe day am ñëpp daw nga ñëw régler le problème mais après même yow bu ma ko defee parce que jàpp nga ne li lii c'est un acte citoyen nga def ko pour le Sénégal mais dafa mériter le ministre de l'enseignement supérieur rendre compte à l'autorité ou bien sax buy def compte rendu officiel ne diw moo ci def alalam moo def la médiation moo dajale étudiants yi moo def lii moo def lii pour ñu aboutir fii mais puisque man dama ko def pour sama réew dangay ngay def rek ma ne day rafet aussi ñu wax ko mu siiw pour bu ëllëgee bu luy amatee kenn bañ a xaar kenn ku nekk dem def sa rôle citoyen mais loolu nga def noonu yëpp lan mooy résultat bi après lan la la jural. résultat bi mooy sama réew am na jafe-jafe. te am naa possibilité pour régler crise universitaire waaw. yaakaar nga ni ba léegi kon crise bi réglé woon. non ba ma non la ma ca tolloon. maanaam foofu à l'époque mhm. la nga xamante ni amoon na. stable na daal. stable woon te du boobu rek l'université de Bambey bi nga xamante ni dem nañu grève à l'époque ndax université Bambey bi ñu door ubbi dama yëkkati 300 assiettes ak 300. Euh, fourchette ak ak 300 couteaux ak frigo jël ko may ko université pour ñu mën a ubbi. seen restaurant bi loolu amee euh, suñu ma jigéen Fama Diagne seen moo ko jël si woon ma accompagner leen ci bibliothèque bi ñu organiser des conférence Mmh. avec le professeur Oumar Diop. Mhm. def fa deux conférences deux grandes conférences. pour lancer université bi pour lancer bibliothèque université bi bi loolu jàllee ñoom problème mu liaison ma dem Italie ñëw may leen bus bu rafet pour def pour ñu mën a assurer la lieson entre l'université de Bambey Ngoundiane ak Lambaye ak Diourbel ci loolu ñu signalé ma problème mu ambulance ma dem Italie ñëw wutal leen ambulance médicalisée jox leen dinaa la may vidéo yi bi loolu amee bi université bi amee beneen crise ñu grève trois mois man maa ci doon dox ak madame Awa Ndiaye ministre Awa Ndiaye parce que boobu étudiants yi dañ nañ nañ nañu ériger le CUR en université avec toutes les difficultés foofu maa ngi saluer courage ak détermination madame Awa Ndiaye parce que maa ne ko c'est que mën nga ci président waate dara ñu ériger la CUR en université du ko coûté dara te dana sauver l'année ndax àgg nañ étudiants yi àgg nañ foo xamante ni su ko suñ ko deful mën na jur yenn ay conséquences mu liggéey ci rôle bu am solo ba le président Wade a été convaincu pour ériger le CUR en université. d'accord ce qui veut dire que yooyu yëpp ñun lu ñu ci waral rek mooy en tant que citoyen man dara xam dara mettre ko à la disposition. téye population pour régler un problème pour passer à la vitesse supérieure. D'accord. mu nekk lu am solo ci cadre bi nga xam ne dox nga ko ci wàllu université jamono yooyu à l'époque ba nga ne stable na danuy daal di ñëw euh, ci li nga xam ne donc d'après li nga def muy mouvement bi nga yoroon yëngatu ci wàllu social ba mu jaral la nga wër ci àdduna bi lu ne jariñ sa dëkk euh, jariñ sa réew rawatina moom moo taxoon nga ñëw nekk nag maire lan mooy maire qu'est-ce que maire maire dëgg jëmm joo xamante ni dafa war a nekk ci dëkk ba mu ne fañ ko fale mhm. ndax ay nawleen la fa nekkandool yu am ci moom yaakaar ak kóolute fi jiital ko seen kanam jiital boobu mu war a déglu war a gëstu jafe-jafe askan bi mhm. xool ay solution yu ngi ciy indi solution yi nag bu ko indi ci ñetti bërëb rek la war ko war a mën a jële ndax solution bu yoon li ci lay ndari solution bi mooy alal xaalis te lenn li collectivité bi li tax ñu ne collectivité li tax ñu ne commune mooy ñépp a bokk kenn ku ci nekk dafa war a participer mooy droit yi mu war a fay ak taxe yi mu war a fay ñu dajale ko li état di indi ñu boole ko ci li partenaire au développement yi di indi ñu boole ko ci pour mën a am loo xam dana ci mën a faj jafe-jafe askan bi maire boobu nag état dafa jël ay compétence ay ay sañ-sañam lu ma juróom-ñeent dénk ko ko mais boo xoolee compétence sañ-sañ mu ko dénk amul ci benn boo xamante ni buy indi xaalis mais état dafa jël sañ-sañ yi gën a jafe dénk ko maire yi te jafe-jafe euh, sañ-sañ yi nga xamante ni mooy indi mooy indi xaalis te boo xoolee ba ci biir maire bi daanaka am ta sa bu ko sa loxo laal la ndax état lu mu la dénk am na ndaw lu ko fi toogal maanaam ministère bu ci nekk am na ndaw lu ko toogal ab service ba pare préfet nekk fi préfet it am tamit moom yéen am ñaari taxawaay taxawaayu nekk représentant ministre yëpp mooy la gouvernement wante it le préfet di délégué wu président de la république looy mën a jëf secteur bu mën a doon dangay mën a jëf ba pare mais da koy seq ak ki nga xamante ni mooy chef de service bi nga xamante ni moo nekk ci gox bi mu xelal la ci xelal boo mu la ciy xelal boo liggéey ba pare walla ku li xaal day dellusiwaat ci ki nga xamante nii mooy le représentant du gouvernement et le délégué du chef de l'État qui est le préfet en l'occurrence moom loolu rôle mooy xool la légalité et la conformité ndax maire dañ ko encadré par ay tex mm-hmm. jëf ju muy jëf rek dafa am lu lu bi wax ne maire bi lii la war a def xam lépp lu jëf loo dëppwul ak loi bu accès ba ci le préfet daf koy rejeté parce que amul conformité mm-hmm. kon lépp lu muy def rek da ko war a teg ci ni ko yoon waxee maire nag li tax muy xaw a metti ci seen gox yi mooy souvent population yi du ñu xam exactement lan mooy liggéeyu maire yi ak lan mooy liggéeyu maire ak lan lay lan mooy la liggéeyu président de la république lan mooy liggéeyu gouvernement. li état war def luy sa rôle ak luy sa responsabilité. Eh, yooyu mën mën nga cee ñëw parce que loolu askan wi tamit gën a xam. nga xoolee le maire ci compétence yi ñu ko dénk bokk na ci li ñuy wax santé. santé dafa am solo wér-gu-yaram ndax même boo xoolee nattukaay yi natt réew yi gën a développé réew mu développé du xaalis Chine mën nañ ne mooy première puissance bi nga xamante ni réew mi ëpp xaalis Chine première puissance économique ban ko wax mais boo demee ci classement réew yi développé Chine téeméeri réew daanaka raw nañ ko kon Chine rich na mais développé wul te développement la ci njëkk mooy wér-gu-yaram ndax nit ki su amee milliard su doone ki ëpp xam-xam ci àddina te wérul il est improductif donc njariñam du bëreeti ndax fi mu toog xam-xamam boobu dana ko réer ndax talu ko alalam jooju dana ko réer ndax talu ko fekkee sax signature la yor bu ko délégué wutoon avant muy feebar lépp day bloqué parce que wérul il est improductif ci xam-xam boobu wér-gu-yaram boobu laa bëgg sax profité di ñaax sama mbokku sénégalais yi maa ngi fàttaliku la ministre Souleymane Ndéné Ndiaye remis na ma recevoir le premier ministre ñuy waxtaan ci wàllu insuffisance rénale ñii la xam problème la ci Sénégal te ci bitim réew du problème ndax réglé nañ cas te nañ ko tubaab yi réglé sénégalais yi mën nañ koo régler régler bu gën a gaaw boobu ñu ciy waxtaan ba ma jox ko ci leeral yu bare bare bare ba jamono yi la recevoir sax le président maanaam association des dialysés ma ne ko première chose nañ fexe ba nguur gi wàññi coût dialyse beneen bi ci des man am naa un partenaire mu tudd Mario Camia en 2002 joxoon nañu benn générateur de dialyse ak ay consommable d'une valeur de vingt huit million pour ñu essayer ko en guise d'expérimentation bu sotee dans le cadre du partenariat public privé ñu mën a installé ay centre de dialyse yu bëri Sénégal yoo xam état bi tabax rek lay def ñoom ñooy installer machines yi ñoom ñooy former nit ñi mais benn condition rek la ñuy demander mooy que ñoom nañu yore fourniture consommable centre yi ñu te dañuy aligner seen prix ak prix yi nga xamante ni ñooy jaay consommable Sénégal on est allé plus loin ma wax ko ma convaincre sama xarit bi pour mu ñëw Sénégal mais aussi mu may ñu centre boo xamante ni mooy installé lépp def lépp ñu essayé xool ba xam mu d'accord def proposition bi ma ne ko premier ministre premier ministre tontu yabal ma mën ak le professeur Boucar Diouf ñëw Touba dem Kaolack retourné defal compte rendu premier ministre bind euh, sama xarit bi pour wax ko d'accord nañu pour ñëw installé ko mais li tax sottiwul mooy man mi porte projet bi booba demande bi Touba la gënoon a bare te projet bi Touba ci ne mais su ñu bëggee transférer le projet à Kaolack donc loolu moo juróon ay lenteur ba juste après euh, yàlla dogal régime bi dem donc affaire bi mujjul aboutir cest à pour wan la ne la volonté am na am na ñu mel ne man ak ñu ma gën a xariñ ñu ma gën a pasteefu mais amuñu possibilité wala même bu ñu amee possibilité y' a beaucoup beaucoup beaucoup de mais le projet dialyse boobu noonu nga wax dafa mel ne tamit léegi agsi na Touba. actuellement nii non xam nga dañuy waxtaan. waaw télé laay wax su ma jógee effectivement bokk nga ci démarche yi ñi def démarche pour mu ñëwoon fi. waaw léegi nag ci loolu le le président Wade amoon xalaatu ne tabax ay centre de dialyse yu bari mais peut-être tabax bi dafa gënal yenn autorités yi que un partenaire potentiel. bu ñëw jàpp ci mais man amoon mon avis un partenaire potentiel ñëw indi des moyens substantiels installés accompagner l'État ñu am def partenariat public privé muy jaay consommable mais équiper la loolu leasing la c'est du leasing am na fépp ci àddina bi le partenaire dañuy indi la ay machine installé lépp formel la ñëpp mais di la jaay consommable moom lañ mujjee ak benn société de la place te alors que buñ ko defoon a kële d' abord matériel moo gën parce que du matériel certifié par l'Union européenne du bokk ak du matériel yoo xam ne dafa jóg dans les pays asiatiques. waaw mais mais mais mais monsieur le maire bala ñuy développé foofu noonu parce que yaa ngi tudd sànq domaine santé bi nga xam ne bokk nga ci responsabilité yi la dégg muy yu gën a jafe pour nga téye ko euh, Mbàkke tey boo ñu doon defal situation fii ci wàllu wér-gu-yaram. lan lan mën a am loo xam ne maanaam ñu mën a maanaam dalal suñu xel ci wàllu yër-gu-yaram gi parce que foofu noonu dëgg la def nga ay démarches yu bëri euh, dox nga ci lu bëri maanaam tamit mais temps jamono jii nga xam moom lañ toll nag nit ñi di jàmbat ak métit bi fi mu toll foo ci toll 1932 ba 2014 Mbacké juróomi infrastructure sanitaire la am muy dispensaire u Mbacké 1932 poste de santé Diamaguène poste de santé Croix Rouge poste de santé Mbacke Dimb ak poste de santé Gawane muy juróom de 1932 jusqu'à 2012 2014 donc muy ñaata at daanaka presque près de 80 ans nous à l'espace ci diir diiru ñeenti at te wax nañ poste de santé sancaan yi équipé ko may leen ambulance tabax nañ poste de santé bu paaleen pare na équipement ngi fii ci biir salle de délibération bi ànd nag ambulance mi Dakar zone de captage dina ñëw tabax nañ poste de santé bu njaayeen peinture moo ci des nag ki doon àggalee ki doon liggéey écolement Mamour Diarra bi moom moo ko doon liggéey pare na carrelé nañ ko defar nañ lépp peinture moo ci des jébbal ñu caabi ci loolu tabax nañu benn maternité annexe ci biir dispensaire bi parce que booba euh, maa ngi nuyu madame Mbacke euh, fexe woon na ba rayante ba am benn benn financement ak benn projet pour la réhabilitation de la maternité boobu amuñu fu ñu transférer personnel bi ak maladie très rapidement ñu tabax benn maternité annexe bu rafet bu mag ci lañ transféré ci daanaka ci lañ liggéey presque deux ans ba projet bi pare ci euh, maternité annexe bi ak trois postes de santé yi donc kon à l'espace de trois ans construire nañu quatre structures de santé bu ci nekk ànd ak ambulance boo xool le poste de santé de gaawaan ñu tuddee ko sëñ Moustapha Ceytu jox na leen une ambulance médicalisée ak un appareil d'échographie pour les accompagner Euh, centre de santé bi boo xoolee bi ñu dikkee dañu changer la clé de répartition des médicaments augmenté ko ba 13 millions. mu tolloon ci fan moom. mi ngi tolloon ci 12 millions mais cle bi ni ñu ko defoon ndax dañ daan jël 7 millions jox ko district. ce qui n'est pas normal ñun on a exigé pour que les médicament yi commune bi jënd mu des ci biir commune bi looloo tax. looloo tax commune bi. am euh, centre de santé bi am 7 millions en médicaments te 3 la daan am les postes de santé yi na am 320 mille francs en médicament léegi mën a am au moins 1 million en médicament loolu nag bu bokkee équipement yi ñu jëndaat pour renforcer non seulement le les postes de santé nouvellement construits mais aussi ñu liggéey ci plateau technique bi ndax nii nii boo xoolee maternité annexe boobu ñu ngi fa prévoir benn appareil de mammographie ak colposcopie pour permettre euh, les les techniciens de la santé pour mën a def diagnostic précoce du sein et du col de l'utérus pour su ay jigéen parce que ñu néew doole loolu nag donc c'est ça fait part de nos stratégies pour mën a mm, gën a mën a maitriser la problématique de santé au niveau de Mbacké mais aussi apporter ci des solutions te bàyyiwuñu ndax euh, léeg-léeg nit ñi di wax hôpital niveau 2 d'accord am naa benn chance nekk euh, maire donc xam naa kon santé par rapport à la collectivité bonne position la ciy taxawee am naa chance nekk président conseil d' administration hôpital Matlaboul Fawzeyni pendant deux ans xam naa le rôle de l'hôpital donc nekkaat naa aussi ci fonction libérale en tant que président d'ONG taxaw benn position ci santé xam aussi exactement lan lay lan laa ci yëngu kon nga gis santé Euh, bu dee hôpital l'hôpital est une clinique de soins da ngay am xaalis ñu faj la ah. amoo xaalis duñ la faj mais la santé euh, bu fekkente ni centre de santé la wala post de santé wala cas de santé loolu c'est de santé publique mm-hmm. médicaments yi mairie koy jënd am na initiative de Bamako bu fa nekk mm-hmm. boo xoolee ticket ngay jënd soo mun ta fay sax mën nga am une couverture sociale soo amul médicament sax da nga am couverture sociale donc kon foofu l'accès est beaucoup plus simple donc pour population lambda bi Fawzeyni li tax moom problème mooy nit ñi xàmmewuñu dispensaire ak hôpital li ngay faju ci hôpital bi dispensaire mën na la ko fajal. d'accord c'est ça le problème. kon Mbacke a am hôpital. si mën na am hôpital ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax. Mhm. ak le de la santé pour l'érection du du centre de santé un hôpital de niveau 2. kooku même niveau un baax na mais niveau deux. mais boobu noonu du projet boo xam ne day gaaw peut-être parce que ak hôpital bi ñu déclaré déjà à Touba euh, nga xam ne ci chantier la nekk boobu ba léegi mënut a fexe ba maanaam raser euh, loolu kon ça ne sera pas facile. mu ñu xam nga loolu lépp problème de formalité la. Mm-hmm. ndax déjà la ministre bu bu érigé woon le poste le centre de santé de Mbacké en hôpital de niveau 2 donc loolu euh, kilifa yi moo koy décider rek. Mm-hmm. mu nekk. mu am accompagnement. d'accord bu ko defee léegi mairie li mën a dolliwaat mu dolli état li mën a dolli mu dolli bu ko defee ñu mën a avancer à la vitesse. c'est bon loolu bokk na ci say priorité maanaam santé parce que daf la ñor par rapport ak social bi ngay yëngoog yooyu mais yéen des na yeneen euh, domaine yoo xam ne dénk mu mu bokk na ci li nga xam ne moom la maire di yore muy sport a ngi fii. culture ngi fi éducation mi ngi fi éducation sànq am na loo ci brosser ak euh, maanaam projet yi nga xam ne moom moo am euh, réhabilitation maanaam réfection école sëñ Massamba yaa ngi ci sëñ Mamor Diarra également. foo toll ci wàllu wàllu euh, deuxième point bi. ci compétence transfert yi mais mmh. aussi. damay jël compétence transfert mais dama bëgg a waal ci IDH les indices de développement humain. pour wax dëkk. boo koy développé fi ngay jaar fi ngay jaar waaw. ginnaaw santé éducation éducation bi ndikkee fekk nañ ne école yu bari dañoo ma dañoo ràpp ci la songee école sëñ Massamba réhabilité ko yow xam nga la fa nekkoon mhm. quatre classes opérationnelles moo fa nekkoon et des abris provisoires liggéey nañ ko ba mu nekk treize classes opérationnelles xam nga ne bokk na ci école yi gën a dàq gën a rafet ci département bi beneen bi ci des defar mur bi ñu songu école sëñ Omar Diop. defaraat ko actuellement école Mame Cheikh Anta defar nañ ko ba tëj ko donc la ci des rek mooy suy bi te kooku entreprise dina ko àggale. mais travaux yi la ci ëppoon pour cent yi pare na école Mame Cheikh Anta euh, Mame Cheikh Ibrahima Fall boo xoolee travaux yi portail bi moo ci des. entreprise boo xam ne après tabaski bi dana ñëw àggale ko pour ñu def réception définitive. Mm-hmm. école Maam Mor Jaara bi. gis nga pare na xam na entreprise dafa gën a saw dafa gën a farlu ñële. waaw ndax daf laa jege nag. donc on a réhabilité les les six classes. non entre non entre Mamor Diarra bi dafa jàkkaarloo. ba pare sama école nag fa laa jàngee. waaw xam naa moom day am day am. voilà donc liggéey nañ ko ba pare na. Uh-huh. te boo xoolee les vingt deux écoles yi nekk fii euh, toutes les vingt deux écoles informatiser nañu seen direction yi. Uh-huh. cela veut dire quoi. actuellement àddina bi day dox mhm. te nit ñu dootuñ composé ci cahier ak feuille volante mais ci polycopie la ñuy examen ñu bëgg aligner les écoles de Mbacké ak les écoles d'ailleurs mhm. moo tax ñu informer toutes les écoles mais aussi jëndal leen jëndal leen écoles yi écoles yi les 22 écoles ñu jëndal leen benn risographie mhm. bu am une capacité de 10 mille copies par jour installée au niveau de l'inspection ce qui veut dire que directeur d' école am nga possibilité toog sa école defar sa programme examen bu pare envoyé via email à l' inspection ñu tiré la autant de copies yi nga soxla te loolu non seulement dañ fa teg risographie bi mhm. mais dañ ci boole une dotation de cent rames de papier pour permettre écoles yi ñu mën a am autant de polycopies ñuy soxla ci loolu it les li nga xamante moo jëm ci wàllu fournitures scolaires respecté nañ délai yi ba ubbi tey jàng tey moom mbàkki saa suñ ko bëggee mën na nekk mhm. d'ailleurs même actuellement nii euh, jël nañ toutes les dispositions pour euh, fournitures scolaires yi mën a nekk euh, sur place d'ici si jours. est-ce que loolu du poser tamit problème ubbi tey jàng tey bi par rapport ak nawet bi bu demee maanaam. non ñun ñun li ñuy aligné nous sommes un démembrement de l'État ñun dañuy aligné rek ci vision État. moo tax yow ci vision état moo tax ñu jël disposition yi pour que les fournitures soit nekk sur place aussi ñu teel a pompe école yi réhabiliter école yi pour que bu nga xamante ni nanuñ ay ca rek fekk ñun pare nañ. Euh, monsieur le maire école yi maanam élèves yi liy jàng si à Mbacké wala liy jàngee am Mbacké bari na problème bi ci gën a maanaam am moom mooy que ni bi bi gën a nemmeeku moom mooy le transport des élèves. souvent ñu indi ay problème yoo xam ne maanaam ay jéyee rek mën nga ko tudd laal nan ma fii sàcc nan ma fii sama doom gaañu na fii mais problème boobu noonu ba léegi mënut a résoudre lu tax loolu. waa léegi euh, maa ngi la benn projet. waaw non ci domaine éducation. voilà nekk moo tax donc euh, actuellement nii may wax yow dès la semaine prochaine am na cabinet d'architecture bi ñëw pour présenter ñu le projet final ci une grande bibliothèque municipale bu ñuy tabax à Mbacké. Mhm. bu ànd une salle multifonctionnelle bu mën a recevoir ay rencontres yu bari donc ak bibliothèque municipale bu mag une salle de lecture les bureaux pour les élèves les chercheurs les étudiants les populations de Mbacké et de Touba. d'accord jàng ci Mbacké ba nañ quatre-vingt pour cent des élèves de Mbacké Touba lañ dëkk. Mhm. loolu nag euh, man bind naa autorité yi ma war a bind. Mhm. muy le ministre de l'éducation nationale bi fi nekkoon sëñ Mbaye Thiam waxtaan naa ci moom lu yàgg ci visite bi mu fi defoon bind na à l'époque le ministre euh, de la gouvernance locale Yaye Abdoul Kane pour alerter leen nee na ñun commune bi ñu yoree quatre-vingt pour cent élèves yi Touba la ñuy jóge te ñoo leen di école yi nekk ñoo koy tabax ñoo koy defaraat ñoo jox fourniture donc ñoom géré ci lépp te loolu doon na loo xamante ni lii rek moo koy saafara soit la commune de Touba participe ou bien l'état central def arbitrage au au au niveau des des des des fonds de péréquation mu mën a au moins accompagner à la commune de Mbacké une enveloppe substantielle pour ñu mën a jël en charge élèves yooyu nga xamante ni ñun ñoo leen def aj nañ seen kaw mais bu fekkente ni nguur yi aussi bëgg nañu selon la vision du chef de l'État donc euh, à travers le PSE bëgg jox njàng importance bu ñu toll aussi il faut ñu fay njëg gu ñu toll kon loolu euh, bokk na ci jafe-jafe benn bi ci des ñu ngi ci benn projet di ko dox le transport des élèves Touba Mbacké ndax élèves yi ay xale yu ndaw ñu bëri ñu ngi bàyyi jàng parce que seeni waajur seen doom yi amuñu sécurité bu ñu mën a jàng see loolu nag bu ñu abandon euh, des jeunes filles des enfants de l'école loolu bokk na ci li ko waral c'est que fi ñu koy xool nekkul foofa xale yi il faut ñu tegal leen ay conditions yu baax pour ñu mën a jàng njàng mu baax te boo xoolee xale yi macha allah yàlla may na leen xel moo xamante ni euh, ñu dàq jàng Sénégal boo leen doon gëstu département de Mbacké la ñu jógee kon nag les autorités dañu war a aussi revoir euh, seen seen seen doxalin Mbacké ak Touba ci wàllu njàng. waaw mais est-ce que tamit concertation mos na am yow ak sa maanaam euh, collègue maire bu Touba ngeen waxtaan ci projet bi ni mel comme li nga wax noonu ne ne wax wax nga état moom mooy arbitré ne Touba def est-ce que yow jiituwoo ci ñoom état. bind naa le président de la République. pour un projet d'intercommunalité entre Mbacké et Touba et le pôle économique Mbacké Touba parce que boo xoolee. Euh, Touba li mu représenté ci àddina sur le plan économique ak sur le plan influence ak ci Sénégal ndax l'université de Bambey moo ne l'actif circulant des trois mois du màggal système à deux cent quatre cinq milliards mm-hmm. yoo xam ne dana dugg ci ñetti weeru màggal yi génnaat loolu daanaka moitié recette douanière la daanaka ceeru recette impôt domaine la mm-hmm. c'est énorme mm-hmm. il faut ñu capitaliser ko moo tax binoon naan le président ba tontu na ma wax ci wax ju rafet que que ñu taxawal la pôle de Mbacké et de Touba parce que Touba ak Mbacké ñaari commune la ñu wante benn communauté la benn ñaareel ba li Touba soxla te mënu koo def Mbacké la ko mën a def see Mbacké li mu soxla bu lëngoog Touba lëngoo bu équitable ku ci nekk mën ngaa gañe mu nekk gagnant gagnant ci loolu nag ci lañ mën a war a régler problème éducation problème de santé parce que ñun boo xoolee plus de soixante dix pour cent presque de nos de nos de de de nos patients malades yi nga xamante ni dañ fi ñëw ak ñu am doom c' est les populations de Touba ndax li ko waral mooy bu ñu demee Fawzeyni il devient client le le malade bu demee ci hôpital client la. c' est un client mais bu ñëwee ci. surtout de santé yi centre de santé poste de dafay nekk patient boo ko defee fa lay gën a yombe mhm. te fi qualité de service bi nga xamante ni poste de santé yu Mbàkke ak centre bi ñu ngi koy joxe mhm. dafa nekk qualité de service bu baax ba pare du am rupture de médicament en général loolu nag tax na population Touba di ci profiter mais nag comme ni ma la waxoon rek war na am aussi donc benn benn euh, ndàmpaay wala benn euh, enveloppe. boo xam ne nguur wala ko appuyer davantage commune de Mbacké. waaw léegi léegi charge yooyu noonu nga xam ne diis na euh, dañuy continuer xam naa ci domaine yi nga doon euh, expliquer ni moom la la dénk wax nga ci éducation wax ci santé euh, projet bi nga xam ne tamit naal ngeen ko muy projet bu centre boo xam ne bu mag la bu bibliothèque bi mag bi mais des na tamit yoo xam ne maanaam soxal na ndaw ñi muy jeunes yi Mbacké foofu noonu danaa ci xuus lu bëri. parce que Mbacke nee nañ amul espace jeune wax nañ ko infrastructure boo xam ne nii de jeunesse bu war jeunes yi di fa yëngu mën naa ko wax léegi muy stade bi jooytu nañ ko ba sonn kenn mënatu ci dara liggéey baa ngi taxaw ba léegi yooyee noonu nga xam ne souvent yow souvent chaque jour ñu ibbi sa bunt wala fëgg la di la soññi wala di di la di la joxoñ naan yow la yaa yow yaa yow yaa ci doxul loolu maanaam lu ko waral lan moo waral lenteur boobu noonu. soit da dem jëli ko wala ñu jox la ko bi ñu nekkee meeru Mbàkke dama njëkk wax ne stade bi duma ci dem li tax duma dem ci stade bi mooy fa ñu denc. waaw yooyu moom wax non ma wax naa ko mais yooyu wax ko nit ñi que loolu moom doo fa léegi loolu moo tax duma fa dem ci laa jóg di dox ba président de la république joxoon ndigal le maître Omar maître Omar ministre de la gouvernance locale à sama kanam la jox instruction Mamadou Makhtar Cissé pour mu jox Omar Youm ndigal pour mu ñëw agré stade bi ak hôtel de ville bi mm-hmm. le président de la république ak fi mu toll moom li man mooy joxe des instructions mais instruction yi su ko joxee ministre yi mu ko jox ñoo ko war a exécuter mais bu ñu koy exécuté wul c'est parce que ñoom ñoo deful seen liggéey à l'époque le ministre ñëw na Mbacké avec une très forte délégation ci stade bi ak ci hôtel de ville mais jusqu'à aujourd'hui dara amul ci kon volonté amul woon au niveau du ministère pour réaliser ko beneen bi ci des mooy bi ñu demee ba liggéey bi àgg ci foo xamante ni wax dëgg yàlla mënuñ ko ñàkk ba ñu defal ñu xool yeneen pexe kilifa gama ca waxtaanal xamal ko bërëb bi ñu fa tëdd ak ni mu demee bi mu ci waxtaanee moom moom it waxtaan na ci njiitu réew mi waxtaan ci ak ministre bi nga xamante mooy Matar Ba bi mu dikkee fii rek wax wax na ko ñëpp di dégg ma la ministre Matar Ba recevoir ñu waxtaan ndax mat euh, Moustapha Diakhaté moom ma woo pour mu wuy yi Ba ma ne dama nekk ci yoon damay dem ci yow damay voyager maa ci yoon ma du ma yàgg une semaine lay def dama dem Canada bi mu jógee Canada automatiquement laa dem mu recevoir ñu waxtaan li mu waxoon mooy président jox na ko ndigal pour mun defar statu Mbacké ci la waxtaan xóotal ci lu bari biñ demee it kilifa dugalaat ci loxoom actuellement nii may wax yow mbay fay woo na ma yaa trois jours wax ma marché bi moom moo ko gagné depuis mois de février mais dafa am ay recours mais jot na actuellement attribution définitive bi moo koy liggéey dana nekk stade boo xam deux mille places lay am ak deux plateformes ak gazon synthétique ak éclairage muy une enveloppe de deux milliards soixante millions dinañ bu ñuy signé contrat bi rek automatiquement moom day ñëw tàmbali liggéey bi. kon li fi jotoon am yëpp contrat amul woon. lan ci. moom li fi jotoon a jaar yëpp ak le ministre bi mu fi ñëwee ba ne dans un mois. entrepreneur baa xam nga on est organisé dafa am code des marchés publics. ministre bi mënul rek xëy jël Ibra Ndiaye ne ko kaay defar déedéet mais dafa am ay procédure yi muy jaar ministre bi bi procédure di jàll ba bañ attribuer le marché kooku di mbay Faye dafa may recours ci mois de février bi recours yooyu mënu ci dara faw de euh, ARMP respecter recours yooyu ak délai de recours yi bi mu jàllee it am beneen société dugal beneen recours. ba actuellement ñun ñëpp débouté nañ leen ba attribué nañ ko définitivement ndax contrat balaa am faw attribution définitive am ba amatul recours. kon sous peu de temps travaux yi dina démarrer. c'est ce qu'il m'a dit. moom Mbaye Faye. Mbaye Faye te lu ko ñor la ndax loola. lu ko ñor la daal. lu ko ñor la te dana ci taxaw. alors euh, merci loolu ci leeral moom kon am na solo euh, waaye nag la ministre Matar Ba kon war woon a yàkkamti ba ñëw ne di visiter euh, di dig tamit population rawatina na yi Mbàkke yi nga xam ne stade rek lañ bëgg football lañ bëgg mais yow amoo sañ-sañu est-ce que ci maanaam ci sa euh, li la yàlla jox dénk la ko ngay borom dëkk bi amoo sañ-sañu tëj stade beneen ni tant que defaraloon ma stade sama waa dëkk du ma ko tijji. xam nga dafa am loo xamante ni aw askan. mënoo ne du ma lekk ci yàpp wi waaye dinaa naan ci ñeex mi ne da nga yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul xam nga ne fee ñu denc sëñ Abdou Mbacke borom dëw bi ak njaboot sëñ Tuubaa yi ci kenn fii ku ñemee dem di fa football mbaa nga fay tëgg te pourtant doomi sëñ Tuubaa tëdd foofu seen mag moo tëdd fii Mouhamadul Kabir seen mag moo tëdd fii soxna Fatima Cheikh Amadou Fadel Mbacke joxoon ndigal sa njaañi buso ne ko ajjuma ju nekk nañ fi wàcc kaamil alquran Cheikh Ahmadou Bamba mi yaakaar fii la feeñee même pas cent mètres du stade sëñ Bousso bi ak Mamour Diarra même pas cinq cent mètres mhm. Mouhamadou Yaddaal yi même pas sept cent mètres ah, mais bañ ko fay def aussi waa dëkk bi fu ñu nekkoon ah, loolu ay kilifa ñëpp seetaanoon nañ ko bañ def ko fi ñu nekk ci ba daanaka lépp sotti na ñun koy nañ muñ rek te ñaan yàlla lee sotti ñu transfert fu lépp benn yoon. def ko kër sëñ Touba. jeex na loolu am na solo kon mu doon loo xam ne nii kon ndaw ñi mais eh, lii di maanaam tamit eh, course bi ñu ci jógee yàggul dara eh, dawal nañ fi benn drapeau boo xam ne drapeau conseil bi la mu nekk lu mba waa Mbàkke namoon course boobu noonu waa Mbàkke gis na bi ñu ci gisee seen bopp ni ñu ci gisee seen bopp mooy ñiy jaay sax café ak ndox ak yooyu yëpp gis nañ seen bopp parce que dañ ko namoon mais dañu dégg ci ay wax ñu ne loolu da nga koy jël place boobu noonu da nga koy jël tuxal ko yóbbu ko feneen def fa beneen euh, am na projet boo fa naal mën nga ñëw ci projet yi nga xam ne naan naal nga ko foofu noonu. xam nga déjà euh, nit ñi dañuy def de l'amalgame duñu xam di wax course bi. boo xoolee ci patrimoine communal la mm-hmm. de Mbacké mm-hmm. dañ fa bëggoon am un projet de recasement yàlla dogal état du Sénégal bëgg faa def lu ñuy wax benn ISEP benn institut d'enseignement professionnel boo xam ne dañ koy jëmale ci les métiers des énergies renouvelables loolu mu nekk université boobu dana am capacité deux mille personnes par année doon lu profitable pour les populations moo tax nag nguur gi bind ne dañ koo soxla pour def fa université bi mais ñun ci suñu wàllu bopp jël nañu espace bu yaatu pour ci ginnaaw statu Mbàkke bi ñu mën fa transférer course bi mais du doon transférer yem ci mais dañ koy tabax mooy bu bees bi. stade bu bees bi ci ginnaawam fa lañ fas yéenee def course bu bees bi mm. mais doonul loo xamante ni luñ koy transférer non dañ koy defar ba mu nekk hippodrome municipal pour que ñu mën a ak grand prix chef de l'état ko dawal Thiès. Mm-hmm. mais boo xoolee war nañ mën a dawal grand prix chef de l'état à oh. ndax course day sport boo xamante ni sport bu am doole la ndax. ay borom yu barke rek ñoo ciy teew. te borom barke yooyu dikk bi ñu fiy dikk dañ leen permettre ñu xemmeem dara ci dikk ba investir fi donc dafa nekk source d' attractivité. Mhm. territoriale. loolu am na solo euh, léegi dañuy daal di ñëw rapidement parce que li ñuy sama réalisateur ñi ngi ma naan li ma dese ci ay euh, minutes néew na trop euh, mais dañu bëgg ñëw rapidement ci bilan et perspective yi nga xam ne maanaam am nga ko pour la commune. waaw bilan bi déjà dugg nañ ci santé. dugg nañ ci éducation. boo xoolee côté sport gis nga ñu ngi ciy liggéey pour stade bi gaaw a pare donc pour ñu mën a yóbbu mais boo xoolee ñun li ëppoon suñu xalaat mooy quartier périphérique yi nga xam ne fa la mi dëkk te ñu fàtte woon leen te bokk ci askan wi tey askan wi nag mhm. lu mel ne njaayeen muy zone boo xamante dañoo am problème courant ak ndox bi ñu dikkee liggéey nañu ak la Sénélec ba insérer Mbàkke ci yenn programme yu mag yépp nga xamante ni dafa jëm ci wàllu courant dañ fas yéene def Touba ñu liggéey ci ba installé fa benn poste électrique bu mag yokk courant bi daanaka lu ma trois kilomètres cinq cent pour permettre population yi ñu mën a am accès à l'électricité de bonne qualité mais aussi ñu yokk yokk réseau ndox mi gën ko éclairer dugalaat courant guy dataar moom it ci wetu njaayeen la dugal courant bu bari jàmm gën un ak deux ndax Mbàkke retard bi moo yàgg le mal est très profond à Mbàkke noonu lañ dugale aussi courant ci élevage dugal ko ci quartier Sancaan yi mais ndooy dugal ko aussi euh, Daaru Salaam Est ak Daaru Salaam Nord ak Sud noonu lañ ko dugale aussi Paaleen ak surtout Ngàcci Fall Njakkal ak Mbàkke Baari dugal aussi courant bu bari foofu ci Mbàkke Dimbu loolu day permettre population yi nga xam ne dañoo nekk ci quartier euh, périphérie yi maanaam accès à l'électricité noonu bi nga xamante ni am nañu jafe-jafe ndox ñu liggéey ak le ministre Mansour fay ba mu jàppale commune Mbacké ci deux forages ba gas nañ ko ba pare d'ailleurs benn bi moo opérationnel moom lañu utiliser nii benn mi ne mi ngi ginnaaw Mbacké 2 mu ànd 10 kilomètres adduction loolu ba installé nañ ko ba quartier périphérie yëpp actuellement foo ci dem am na ndox donc parce que ndox ak courant dafa bokk ci li nga xamante ni dafay mooy dundal doomu aadama mais aussi ci côté sécurité ci réunion national màggal baa daaw le ministre de l' wax dëgg yàlla joxoon nañu accord pour indi ñu renfort bi mais loolu pour mu mën am. il fallait que ñu indi ñu mën a am fuñ leen daral ci la mairie jël xaalis réhabilité batiment bi nga xamante moo nekkoon ci biir euh, police bi pour mën a accueillir vingt cinq jeunes yoo xam dañu nekk en permanence à Mbacké pour venir en renfort au commissariat de police pour que ñu mën a gën a sécuriser dëkk bi ci loolu ci biir Pakasen bi Euh, Mbacké dafa nekkoon commune bu déficitaire de cent quinze millions bi ñuy door yegg si mais fay nañ ko vraiment def ay performance yu tax ñu éligible ci PACASEN bi loolu it euh, bokk na ci perspective yi ak projet yi war def ren mooy la réhabilitation du marché de Mbacké digg marché bi pare nañ ko injecter quatre vingt millions l'enveloppe est disponible pour réhabiliter digg marché bi 2020 ñu entamé deuxième phase bi donc en trois phases ñu réhabilité marché bi kenn ku ci nekk nekk ci fu baax fu rafet fu am sécurité comme ni nga xamante sancaan yi bi leen yóbbulee courant yóbbu leen ndox tabaxal leen poste de santé aussi dañ leen lotiseel seen marché pour permettre leen ñu am ay activité ci wàllu jigéen ñi aussi actuellement ñu ngi ci deux cent cinquante et groupement yoo xamante ni am nañ financement ku ne un million à travers ak suñu partenaire boo xamante ni moo ñuy permettre ñu mën a enrôler ñooñu aussi ci wàllu formation jigéen ñi aussi am nañu dix salles de classe yu ñu jot a jàllale chaque salle de classe leen jox cent mille former leen ci alphabétisation mais aussi maye leen cent mille francs danañ ci dérouler ay activité génératrices de revenus ñoon bi seen formation di jeex ñi am nañ quatre cent cinquante mille ñi cent mu permettre leen ñu mën a def seen ay activité ci biir perspective yi bon envisagé nañ ci biir pakk seen beaucoup de grands projets des centres commerciaux yoo xamante ni incha allah ci 2020 bi bëgg nañ ko taxawal parce que Mbàkke amul recette population yi ñu bari duñ fay donc euh, moo tax ñu prévoir euh, des centres commerciaux et d' autres activités d'autres commodités yu permettre dëkk bi mën a am xaalis pour mën ko réinjecter. mais yooyu yëpp am na yu ma ci dégg dégguma tamit ci euh, jeunes yi gisaguñ ci seen bopp de. xam nga sa problème ak la jeunesse. non y a pas de problème. ah am na jeunes yu naan vraiment. am na am na ay jeunes xam nga fii. Mbacke dafa dafa am euh, ku ñuy wax Naar Gueye. il est venu waxtaan bi muy wax mu ne Mbacke fii jeunes yi ñaari activité la am. politique ak nawetaan mhm. moo ko wax de naar gee ko wax te it ñu fi day ay jeunes lañu mhm. euh, la ci nekk mooy man bi may door a toog wax naa ne dama bëggoon équipe nawetaan yi ak association yi nañ ñëw ñu jàppale leen ñu am ay ay euh, projet lu mhm. jëm ci wàll aviculture ñu diaboliser ko mais aviculture boobu boo xam ne si bëri ñu ngi wëlbati ko waat pour ñu def ko parce que étant jeune da nga war a jàng parce que nit ñi doon il faut ñu ñu leen di wax ñu leen di wax dëgg xale day jàng mbaa jàng métier mais man mënuma concevoir nga nekk jeune wér dara jotu la nga bëgg boo xëyee suba entraîner ngoon nga entraîner toog ci taatu garab boo yaay sa pa boo añee sa papa la ko jox. bo mais dañuy waxtaan nag. waaw loolu sax amul ñu ci bëri nag. waaw loolu moom ñu ci bëri nag da bëggul sa bopp mais ñoom dañuy jàpp ne maanaam seen i activité comme bu ma ko waxee dañuy xaar ba maanaam ba sori ba sonn sonn doog mën a jot ci li ñu bëgg ci seen maanaam jeexatul activité yi. mooy lan naa cité moom les finales yi nga xam ne nii. depuis daaw la lan joué euh, compétition ren ñu soog a ñëw ba léegi ni joué la finale non non mën naa itam problème subvention des ASC non non loolu loolu loolu manque d'information la depuis trois ans informé ñu jox depuis trois ans mhm. les subventions pour les équipes nawetaan day mhm. disponible à partir du mois de mai bu yàggul rek au mois de mai laa sama secteur municipal nekk waxal le président de l'ODECAV mhm. ne ko les subventions sont disponibles mais association am amuñu récépissé te chaque fois dañuy wax ne il faut ngeen am récépissé récépissé bi cherul 7500 mais amuñu récépissé da ngay obligé def une décision créer commission de paie ñu defal leen liste ñu ñëw émarger ñu jox leen actuellement nii depuis mois de mai subvention bi disponible mais ñoom nekkul dans les pour jot ci dama mujj wax le secrétaire municipal tout à que na defar une décision moom commission de paie bu ko defee ñu woo leen ñu jox leen ko ñu émargé da nga ñëw indi leen beneen doxalin boo xam ne ba daaw fi am mais attends xaalis boo xamante nii xaalisu dëkk bi la mhm. li nga xam suñuy yaay ak suñuy baay ak suñuy maire yi sonn yi ñoo koy dajale loolu buy génn il faut mu am une traçabilité il faut moom fa muy jaar beneen bi la finale de la coupe du maire Euh, bi bi bi bi joué compétition ba pare war a final sëñ Cheikh Darou Rahman làqu kooku su jox quarante mille milliards lu ma ko def ci lu bi ñeent fukki guddi jàllee tombé koor gi bi koor gi jeexee licence joueur yi jeex moo wax leen nag il faut jël leen benn soit ngeen reti une date ñu ko soit ma jox leen xaalis bi ñoom ñu def choix mu jox ñu ASC jàmbaar jox nañ ko jeu de blouson jox ko jeu de maillot ba nag baax jox ko deux ballons jox ko uh-huh. yoonu ndam mais kon maa ngi dik laisse-moi terminer uh-huh. jox nañ ko jeu de blouson jox ko jeu de maillot uh-huh. jox ko deux ballons jox ko deux cent mille ASC bokk jom kadi jox nañ jeu ak cent mille ASC renaissance jox nañ jeu de maillot ak cent mille c'est que jeu wuñ ko option boobu mais ñu jox leen ko où est problème. mais loolu amul ko loolu moom amul sens compétition boobu noonu. mais mais où est le problème. non c'est-à-dire que loolu moom du loolu moom du ab compétition mbokk yi ni seetaan du final loolu mën a récompense neexal bu ñu jox la mais. final c'est leur waaw non c'est leur nga bañ yow en tant que mais da nga war a am parce que conseil. baa ngi c'est leur choix non attends fi moom mën a dem assister la. dañu nekk ci année en cours mm-hmm. mënuñu organiser deux finales selon eux. mënuñu organiser deux finales ci benn ci benn benn année c'est pas possible pour satisfaire rek. non dégg nga li man li ma man mooy faites un choix. ñoom ñoom bu ñu defee seen choix ma defal leen ko. d'accord monsieur le maire élection yaa ngi ñëw. Euh, élection locale yaa ngi ñëw euh, yor nga mairie bi pendant quatre ans xaw ma cinq ans euh, ñu war koo la nekk ñu war cee duggaat yan disposition moom nga jël fi mu ne nii ak lan mooy sa yéene encore pour avenir u Mbacké. sama yéene mooy servir Mbàkke ci benn segment de temps parce que sama métier moom doon doon maire rek continuer déedéet dama bàyyi activité boo xam daf doon jariñ Sénégal ak ak ah, Afrique. waaw laisse-moi terminer. ko dama cee kontaan. voilà dëgg yàlla tax ma ne. waaw léegi ak ci boobu ma dàggatit man nag. maa ngi jégalu loolu noonu moom daf ma neexoon nga ko doon def. moo tax ma ci ñëwaat. ma maa ngi koy continuer ba léegi nag. ndax boo xoolee li tax gisoo ma télé lu bari. ci wàllu action action mooy li ci ay maire ak ay président de conseil régional laa fa doon jëflanteel ndax mënoo nekk maire ba pare dem di jox sa moromu maire loo xam ne moom da koy soxla pour say population dam ko bàyyi mu def ko population moo tax même action yu bari sax su ma ko def rarement laay génn télé ndax boo xoolee li ma génn télé euh, li ma def action ëpp na ak sama équipe mat na vingt fois li nga xamante li génnul télé na vingt fois li génn télé donc souvent sax dama daan yónni kenn ci équipe bi mais li am solo daal mooy man mairie dama ci nekk pour un segment de temps jël sama alal jël sama doole jël sama xam-xam jël sama temps ndax sama dund ma jël ci nangami at fas ko yéene may waa Mbàkke moo tax ma wàññi samay activité yëpp toog ci dëkk bi mbokk ñoom jafe-jafe yi mbokk ak ñoom métti yi pour mën a régler problème yi ñu ci mën a régler su ma demee ba fa ma war a yem ma yem fa beneen doomu Mbàkke ñëw continuer man ma dem ca leneen loo xamante ni wax dëgg yàlla. neex na ma voilà waxate ko neex na ma. mais kon ba léegi nii yaa koy soxla mairie effectivement. incha allah dinañ dañ nekkaat candidat parce que liggéey nañu mhm. ndax boo fekkee déficit budgétaire mairie amel trésor cent quinze millions parce que presque mën nga ne vingt huit ans mhm. nga rayante fay boobu rayante ba réorganiser ci périphérie yi gën a sonn ba intégré leen relever plateau euh, euh, technique santé liggéey ci école yi réhabilité waat lu bari relancer beaucoup d'activités ba banque mondiale ak euh, l'AFD ak les autorités du Sénégal gis ne commune bi vraiment bu ñu repêché la ñu repêché ñu bugg ci Pakaseen ba am ci un milliard soixante am des projets vraiment dynamiques et porteurs d'espoir di ci liggéey ba pare jege xalifa général des mourides di waxtaan ak moom pour ñu liggéey ci intercommunalité pour avenir Mbacke ak Touba. donc loolu bu ñu sañoon danañ danañ danañ ko gën a dëgëral. ba mu taxaw. bu keneen bu ko defee booy booy bàyyi sax. keneen ki mais bi nga koy jël bu leeral rek ñi li ngay bàyyi dëgër na. Uh-huh. te ñi koy accès bu ñu accès dañuy continuer. mais bi nga koy jël euh, ca liste bopp nga demee jël mairie bi lu kenn foogoon ci woon ci Mbacke wax dëgg yàlla ñu bëri nee na kii de fi ñu jaar moom jaaxal nañu. ah moom jékki-jékki ne nag ñun séntuwuñ ko woon fan nga jékki-jékki ñëw galgal leen daal di jël réew mais boobu noonu ci sa liste boobu léegi nag yaa ngi ci nguur gi di ànd ak ñoom ànd nga ak ñoom ci ñaari élection muy présidentielle ak euh, élection euh, législative yi est-ce que local yi di ñëw ci foofu noonu ngay sóobuwaat wala da ngay wutaat sa liste bopp. xam nga fi mu toll nii dañoo toll ci liggéey. liggéey lan réew mi wala. liggéey commune de Mbacké. tollooguñ ci politique yow gis nga man duma politicien ndax yow xam nga bu doon politicien Mbàkke laa dëkk samay bokk fi dëkk ndax soit da ngay dañuy bokk directement mbaa nga yaakaar Sëñ Tuuba te am naa levier boo xamante nii kum ci woo ne la nangam a nangam boo ko nartoon sax da ko def mais du ma utiliser man duma politicien man technocrate la am yéene pour def bu nee ba toll ci politique nag ñu xool li politique laaj ñu def ko mais pour le moment bëgguma sax wax waxi politique. waaw nañu wax ci régler problème mu population Mbacké. Mbacké kon kon man man man sama sama dégg mën naa ne kon. pare gut pour maanaam nekk ci langue politique bi di ànd ak politiciens yi ba local ñëw soobuwaat ci politique boobu noonu. non man dañ xam nga waa Mbacke biñ may fal faluñu pour affaire yi politique. dañ maa fal pour problème pour ñu régler problème Mbacke. waaw problème Mbacke boobu noonu moom laa wax ci la ñuy ci ngay liggéey. waaw ci laay liggéey nag. problème boobu nag mairie li ko ci war. ndax bi ñuy door a toog PDC lañ programme de développement communal ne Mbacke fii lañ ko bëgg a mm-hmm. ñu waxoon lu ci ëpp réalisé nañ lu ci ëpp près de quatre-vingt pour leneen la ci des nag état du Sénégal moom moo war defar tali yi te Promoville ñëw nañu fi natt ko liggéey lépp ba commencé arrêté loolu lu mairie état la lii stade bi état la moo ko war a defar beneen bi ci des muy hôtel de ville bi état ko war a defar li nga xam mooy assainissement état moo ko war a def même mbalit mi état la war ndax boo xoolee programme Car ak Car ñu yor jël mbalitu Dakar jël mbalitu Tëngéej jël mbalitu Rufisque euh, euh, Géejawaay ak mbalitu Pikine mais état bi jël en charge mbalitu région de Dakar moo war a jël mbalitu région yëpp. kon bu fekkee am nuñ problème mu mbalit c'est parce que y a une défaillance mm-hmm. quelque part miir bi amul doole ji. parce que nit ñi fay ñu te attention boo demee en Europe foo dem ci àddina communes yi amuñu ay oto invalide mais nit ñi ñooy fay tom les taxes sur les ordures ménagères mairie yi jël ko luyee ci ay oto wala signé ak ay concessionnaire pour ñooñu di jël mbalit mi donc kon dafa am li xam état moo ko def te defu ko wala defagu ko kon nag ñu ngi ciy waxtaan di soññaate pour ñu accélérer ko ñu def ko Abdou Mbacké Ndao moom en tout cas maire la candidat la waat ci mairie bii di ñëw euh, maanaam élection locale yi di ñëw tey nag xamagul nag ba xam listam lay demee wala boog day ànd ak euh, coalition APR demee ci mais bërki démboo Ndiaye waa Mbacké gépp jug nañ taxaw nekk benn say ngir maanaam ndox mu naqari bi nga xam ne moom moo am ci dëkk bi te ñu métti lu ko ñoom lool ay at yi at ñu bëgg mu soppi ko mais yow gis la ca lan moo waral lu ni mel marche boobu une précision waxuma li nga wax de dama ne la. pour le moment. waaw waxuma waxi politique. waaw. pardon wax rek waxuma waxi politique. waaw. waxuma waxi liste. waaw waxuma waxi. élection man benn wax laa wax. mooy pour le moment liggéey Mbàkke mooy sama priorité. àggagum foofu foofu laa waxee. non non li wax. ak li nga xamagun xamagun la jëm kay. bokkul il y a une grande nuance moi j'ai fait de la communication j'ai un bachelor en communication uh-huh. donc bul orienter ma communication non non non du tout non non non du tout monsieur le maire dama ne non kon bàyyil brut d'une manière brute uh-huh. li ma wax bul ci commenter no comment léegi ñëwal ci mobilisation bi am bërki Demba Ndiaye mobilisation bi euh, man li tax aussi damay féliciter population yi ko doon def muy day wane rek uh-huh. toujours ñu ci recherche de développement toujours ñu ngi liggéey pour dëkk bi gën a développé wàllu ndox mi nag ndox dafa am historique ci Mbàkke ndax boo gisee ne ñii daan roote ji daaru mën naan lañ daan moo daan approvisionné Mbàkke à l'époque gaar bi amoon na petit forage pour alimenter ñiy liggéey ci gaar bi ak les riverains loolu mënul jël mbooloo mu bari ndax napp bi soriwut man ci ndox laa yëngu dama leen ay teen yu bari yoo xamante ni ndox mu neex lay génne mais am naa ci teen moom biñ ne ma fii ndox mu neex ba ma demee ba bëgg lu gën a bari ba ma dépassé ba dem dix-huitième mètre ndox ma dafa commencé na xare ci Daaru Rahman donc ñun dañoo nekk ci bassin arachidier te le bassin arachidier mooy li commencé Bambey jëm Gosaas dem Fatick Diourbel Kaolack ba ba ëmbaale Colobane Mbar ñëw Mbàkke ba Daara Moxti ba jub Kébémer lu lépp ci bassin arachidier bi la ndox mu naqari la ñuy am foofu ndox mi gën a propre mooy nappe Maastricht muy ñun. forage yi ñu gas avant le màggal de Touba te moo population ñoo doon jooy ne ndox dafa manqué ñu reyante ba le gouvernement gas de forages ñaari forage yëpp ñi ngi ko amee ci trois cent trente et de profondeur nappe maîtresse ñaari yëpp ñoom euh, ñi doon def doxu ñaxtu walla ñun waa Mbacké bëgg nañ ndox mu neex mais wax naa ne fii sama bureau man fi laa dëkk juddoo fi yaroo fi suñu kër mën naa ne kër soxna may ñi ko dax consommé ci ndox ci dëkk bi yaakaaruma ko ndax zone boobu yëpp fa lañ ndox te moo koy fay ba ndox mu neex mi dañ ko jënd ci charrette yi léeg-léeg ma rootiwaale tool indi kon liñ ciy consommé deux factures yi metti na mais deux factures yooyu moom fépp ci àddina bi ndax Europe ak fu mu mën a doon da ngay jënd ndox mi ngay naan bokkut ak ndox mi ngay utiliser mun peut-être amuñu doole di jënd Pierval tous les jours wala di jënd Volvic tous les jours mais am nañ doole jënd bidon ay nit nag bu ñuy wax dañuy waxtaan dañuy waxante dëgg bañ a naxante bañ nax population yi Mbàkke Mbàkke lii tax mu mën a am ndox mu neex mooy Lac de Guiers bi état du Sénégal projette pour indi ko Mbàkke Lac de Guiers ak si Touba dugaale Mbàkke loolu muy option bi gën pour ñu am ndox mu neex beneen bi ci pour ñu ndox mu neex mooy ñu indi ay unité de traitement d'eau ay osmose inverse pour mën a jël ndox mu am xorom mi wala ndox mu sëcc mi désaliniser ko te bu boobaa ak privé ko mën a def te privé bi koy def fu mu jaayee fu mu génnee 1000 litres ndox bu neex dana tuur 1000 litres ndox bu naqari ndax lu ma xam la man dama koy appliquer dama koy def ce qui veut dire que privé boobu il faut ñaari possibilité la maanaam soit mu gas forage pour liggéey ko soit SDE di ko jaay ñuy traité ndox mi di ko jaayat te mun a créer réseau de distribution maanaam circuit de distribution am ay otom yu wër di jaay mais mënul am réseau c'est pas possible wa ilaa ñu jënd ndoxu saret yi posé naa leen question bi ñëwee sama bureau ma ne ndax yéen da ngeen a bëgg de l'eau potable wala da ngeen a bëgg ndox mu neex ndax dafa am différence eau potable mooy ndox mu mu mën a naan moo xamante ni du indi benn loraange ndox nag mën naa neex ba pare bari ay loraange ndax boo xoolee mën am naa tool boo xam day jaay ndox mais da ngay charrette yi am na ci ñoo xamante dañoo set am nañ sët yu donc loolu mooy li nga xamante ni mooy li mën a neex ndax ñun ñëpp ko bokk kon nag population yi bu ma sañoon bu leen di wax leen di wax lu leer beneen point bi may bëgg a dikkee cangé j'ai fait des investigations te ma aussi ndax dinaa def lu analyse pour xam ndox mi mais nag analyse bi bi mu bëggee def analyse ne analyse bi ci source bi rek mën a jëlee mooy bu ndox mi génnee ci forage bi jaar ci château bi génn avant mu dem ci circuit bi avant mu dem ci réseau ndax réseau bi am na tuyau yoo am na 50 ans tuyau na 40 am na tuyau am na 20 ans mais tuyau yooyu bu fekkente nii léegi dafa infecté wala ak force bënn laal ko te yëguñu ko wala moom quelque part fu muy fuite ainsi de mu infecté mais kooku kenn mënu ci dara donc nañu ànd ak lucidité gën a waxtaan xool nan la ñuy fexe ba Touba bu amee ndox mu neex Mbàkke am ndox mu neex. voilà jërëjëf mbokk yi mu nekkoon seen découverte ak monsieur le maire Abdou Mbacke Ndao ci seen site 28 Pro TV ñu ngi am mbégte bu baax a baax ànd ak yéen alors euh, monsieur le maire bala ñuy jeexal 28 Pro nag équipe de euh, équipe locale la boo xam ne nii. doomi Mbàkke la doomi Touba ak Mbàkke ñoom ñoo ko yore noo gisee seen liggéey par rapport ak loo leen xelal loo leen doolelee tamit. 28 pro maa ngi leen di félicité ndax ay jeunes lañu yoo xamante ni dañu toog ci localité bi affronter les réalités locales pour participer au développement du département et du Sénégal ndax communication. dafay loo xamante ni àddina bi dañ ko soxla te bi mu ñëwee samay xarit rek laa ci gis kenn ku ci nekk fa nga nekkoon référence nga foon kon bu ngeen combiner seen ay force damay bëgg mais aussi di leen ñaanal mais aussi di ubbil aussi bunti mairie bi pour que ñu mën a ànd liggéey pour def la promotion du département de la commune de Mbacké mais aussi du Sénégal parce que it euh, wax ji bari na mais boo xoolee en terme de réalisation li commune de Mbacké réalisé amul benn commune ci Sénégal Sénégal parce que je connais ko de maires c'est mes amis ci bëri maa ni jàppale ci loolu amul benn commune ci Sénégal bu ko réalisé amul dafa toll nag li état war a def dafa bari bari goo xamante ni. ci bëti nit ñi dafay xaw a créer ay frustration mais nag malgré tout ñun li ñu xamante moom la ñu dénk te ñu war koo liggéey ñu ngi koy liggéey kon ñu leen di féliciter di leen encourager di manifester aussi suñu engagement ak suñu sympathie ak suñu collaboration dans tous les sens. jërëjëf sans limite. jërëjëf merci beaucoup mbokk yi doon seetaan 28 pro ñu ngi am mbégte bu baax a baax doon dalal le premier magistrat de la ville de Mbacké monsieur Abdou Mbacké ndaw euh, di ko sant bu baax a baax ci disponibilité am di ko jégalu nag également ci ni ñu ko téye parce que ñu bëri ñu ko soxla ko audience. mu nekkoon équipe boo xam ne ni maa ngi ci àndoon ak Talla Samb Serigne Mbacke Fall euh, Bekay Ndiaye euh, di gërëm bu baax baax de passage suñu xarit Xaasim bi nga xam ne bokk na ci ñun muy euh, collaborateur 28 Pro moom la la ñu dénk maanaam suñuy coordination comme ni nga ko waxee nag 28 Pro incha allah dana ànd ak la commune de Mbacke ci ay réalisation yoo xam ne maanaam nañu wax nag te li nga xam moom moo am dañuy liggéey te liggéey gox bi moom moo ñu ñor ànd ak moom ci réalisation boobu boo fësal ko wan ko askan yi par rapport ak ci yeneen activités yoo xam ne dinañ ko amal yeneen dig daje ci yeneen jotaay jërë ngeen jëf